une vision, un discours mémorable qui marquera l'histoire. Préparez-vous à être captivé. Rejoignez-nous pour entendre les paroles inspirantes de notre leader, Ousmane Sonko. Préparez-vous, soyez prêts à vous immerger dans une soirée exceptionnelle, porteuse de renouveau, en route vers la victoire en gérer sa avenir doomi ci sët la kooku jaamu yàlla mënu ko waral. moment historique boobu la ñu toll. dafa am moo yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en main. yeneen réew yi ko def gënuñu ñu. gënuñu ñu. wallaahi yéen laa ko la jeunesse. 2024 ñu soppi réew mi. 2024 changement commencé na faw faw. 2024 yor yor ñaaw ñaaw yor yor yor jóge définitivement jog jam jog jam bu mu jaam bi delloo si alal ci réew mi ci réew mi séddale ko séddale ko séddale bu maanu bu maanu lenn la lenn la projet bi ñu boole ñu boole ñun ñëpp ñu koy xeex ñu koy door koy door woon suñu woon fukki nit fukki nit di waxtaan ak Sénégalais yi ngeen koy gëm koy gëm ba tey muy tey muy nga xam ne ñun ñëpp xam nañu bu ñu demee bu ñu demee 2024 gannaaw yàlla yàlla kenn mënuñu tere jël réew réew réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en main yeneen réew yi ko def gënuñu ñu gënuñu ñu wallahi yéen la jeunesse 2024 soxla réew mi 2024 changement commencé na faw 2024 yor yor ñaaw ñaaw yor yor jóge jóge définitivement dog jam dog jam jaam bu mu jaam gi delloo si alal réew mi ci réew mi séddale ko séddale ko séddale bu maane bu maane lii la suñu projet bi ñu boole ñu boole ñun ñëpp ñu koy xeex bi ñu koy door koy door woon suñu woon fukki nit fukki nit di waxtaan ak Sénégalais yi ngeen koy gëm koy gëm ba tey muy tey muy nga xam ne ñi nga xam ne une vision un discours mémorable qui marquera l'histoire préparez-vous à être captivé rejoignez-nous pour entendre les paroles inspirantes de notre leader Ousmane Sonko préparez-vous soyez prêts à vous immerger dans une soirée exceptionnelle porteuse de renouveau en route vers la victoire en